aouzu billahi min asheytaan irajim bismillahi irahmaan irahim allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidi al awalina wa sayidi al axirina allazi lam yoxlaq mislahu bi ka lam yabdu mislul mustawa bokk yi ginnaaw bu nu sant yàlla jul sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñëw ci suñu émission yowmal jumaa eh, di ko dem ci jumaa yi di taataan la fay bàyyi ko di ko jottali doomu aadama yi ñu mën koy seetaan tey nag dañu ñëw fii ci Gàmbi ci Banjul eh, ñëw fii nga xam ni mooy eh, Niaman Nazir nga xam ne tabaarkala bu ngeen seetee kii eh, photo boobu ci sama ginnaaw mooy borom dëkk bu tedd bi di Cheikh Mat Nazir ñas bu Cheikh Ibrahim ñas borom alquran dëkk bii nag moom moo ko sos ci Banjul ñu ñëw fi nag àndandoo fi ak mbooleem waa Nazir Euh, wa ni'man nadir nga xam ni tabarakallahu euh, jàpp naa ni bu nu fi duggee ci imam bi ci jumaa ji nga xam ni moom la Cheikh Mouhamad Nazir Nas bàyyi fi imam Abdullahi Ba ànd ko ak mboolem ñi nga xam ni ñoom la fi bàyyi woon mu xaddam yi xam naa ni duñu sori dañuy daal di àndandoo dugg ci biir rek ànd ko ak mbooleem sunu waa ñi nga xam ne ñoo jógeendoo Sénégal waa ak ci 24 nga xam ni tabarakallah ñoom ñëpp dañu ñëw àndandoo ak ñoom ci liggéey bi ànd ko ak itam sunu xarit Ibou Cissé moom xam ngeen ni waa kër Cheikh Ibrahim ñas la xam naa ne dunu sori dañu dugg ci jumaa ji rek xaar imaam bi ñëw ñu taataan li nga xam ne mooy nodd yi julli yi eh, àndandoo ak ñoom déglu xutba bi bu ñu noppee julli ba noppi nag toog waxtaane lu sos dëkk bi lu sos jumaa ji lan la fi Cheikh Mouhamad Nazir Niass def incha allah kon Ibou ñu dugg ci jumaa ji الله لا إله إلا الله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 وإذا البحار فجرت وإذا القبور بصرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر سمع الله لمن حمده Allah النعمة برهام على mbokk yu tedd yi ginaaw bu nu santatee yàlla julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa nu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di baal àq ñëpp di leen baalu àq nu ngi ñëw ci suñu émission yowmal jumaa comme ni nga xam ne noonu lañ ko daan defee di ko ànd ak seen xarit alxaaji Njaga Sekk Euh, tey nag ñu ñëw fii ci euh, Banjul euh, ñëw nag ci dëkk bu tedd bii nga xam ne dëkku lislaam la waaye ñëw fii ci Niamal Nazir di dëkku sunu wayjur maam Cheikh Ibrahim Niass waaye nag Cheikh Mat Mouhamad Nazir Niass boobu nga xam ni Mouhamad Nazir Niass alquran mooy borom dëkk bi ndax li fi taxaw moo ko fi def ñu ñëw nag fekk fi imaam Abdullahi Ba Niamal Nazir ci xutba bu am solo bi fekk fi kilifa yu mag yi yëpp nga xam ni borom yitte lañ ñu ànd ko ak Télé Futurs Médias ànd ko ak ak ak Ibou waaye ànd ko ak suñu xarit yi nga xam ne ñooy waa Actu 24 fekk fi itam télé bi nga xam ne euh, fii la nekk ci Gàmbi nga xam naa bala ñuy sori di jox imaam rek dañuy sargal imaam yi nekk ci dëkk bi yëpp nuyu leen ziar leen ziare itam borom réew mi ndax xam nañu cër bi nga xam ne jox na ko lislaam ànd koog itam mbooleem ñi nga xam ne rek ay boroomi xam-xam lañ te nekk fii ci dëkk bi di fi jàngale ñu ziyaar leen nuyu leen bu baax fii ci Niamat Nazir ci Banjul ànd ko ak mbooleem koo xam ne rek yaa ngi eh, déglu fii lii nga xam ne mooy fitre Médias du nu sori dañuy daal di jox imaam mu nuyoo rek duggal nu ci eh, xutba bi ndax émission bi lu ko tax a jóg bu ñu waxtaanee ba noppi jataay bii ñuy def xutba bi ñaari kàddu rek yoo xam ne dañu danañ ko fàttali nit ñi ci actualité bi dugg ci sargal mag ñi dugg ci archive bu jumaa ji nag ñu jox waa jumaa ji ñu yor tam seen i kàddu kon imaam bismillah Serigne Ndiaga ñu ngi lay nuyu di nuyu mbooleem ñi nga àndal yëpp ak télévision yi nga àndal yëpp ak ansaaru din bi ngeen fi fekk di leen nuyu ci bésu ajjuma ju tedd bi di wax ne su ñaari rakk yeeg ñaari xutba yi yal nañu ko yàlla nangul waaw ñëw ngeen fii mooy Nema Nazir dëkk boo xam ne doomu cheikhul islam alaaji Ibrahima ñas moo fi ñëw sanc ko tuddee ko neema muy xéewal la ko waral mu ne dafay delloo njukkal waa Gàmbi ngir la Gàmbi defal Alaaji Abdoulaye ñas muy maamam ak li Gàmbi defal Cheikh Ibrahima ñas muy baayam baayam daan ko wax na Naziru booy tukki jaaral Gàmbi waaye booy dellu si tam jaaral Gàmbi ba yàgg mu ne ko bàyyi lu tax mu ne ko Gàmbi dama leen bëgg te ñu bëgg ma samay nit lañ ma bëgguloo mën a def ci teraanga nga defal ma leen ko ndax luñ góor góor lu mën ak yow mënuñoo fay waa Gàmbi kon neex ma e, njukkal la bu bay ko ci Maolana Cheikh Ibrahim ñëw ci mboolem nitu Gambia e, mu sanc fi dëkk bi mu tuddee ko neex ma 1981 la ko sanc atam la ku koy ñëwoon ci dëkk bi e, yàlla def ci jàmm booba la ko sanc bam sancee lan la ko sancee mu ne ko ñetti os la koy sancee ñetti aussi mooy lan mooy jàng muy école bi ak jaamu yàlla muy jumaa ji ak teral gan yi muy kër gi muy ñetti os nga xam ne mu ne àddina yëpp foofu la taaju nit ki da ngay jàng boo jàngee ba pare dem jaamu ji yàlla boo jaamu ba pare nga am fooy waxtaan ak say nawle di fa toog di wax ak ñoom loolu la ko sancee woon mu ne ndax baayam loolu la taxawoon loolu la bëggoon kon nag ñu xutba fi nag xutba yoo xam ne depuis ñu jumaa ji ñu ngi ko ubbi 1985 lañ ubbi jumaa ji ci lañ ko commencé di jàng ci lañ commencé di ci xutba jumaa ji banque la woon ñu toj ko def ko ciment ñu toj ko yaatalaat ko benn taalibe bu baax boo xam ne ñu ngi ko tuddee Maolana Cheikh Ibrahima muy Barham Diouf ñas mu ñëw mu ne ma jumaa ji daal ni mel ci dëkk bii man buggewuma ko nii dama koy toj tasaare ko ma sampaat ko te xam naa Cheikh Nazir du ci wax dara ndax loolu ci gannaawam la woon ci la toj jumaa ji mu tabaxee ko nii nga gis doomu doomi Gambia moom moo ko def ànd ak mbooleem taalibe Gambia yi ak ñi dun taalibe mbooleem Gambia moom taalibee ku du taalibe ñëpp a bëgg Baay Ñas Gambia moom doonet kii mooy taalibe Baay Këll ñëpp bëggu Baay Ñas la ko delee ci président bi ba ci ki juddu tey ñëpp bëgg nañ Cheikh Ibrahima Ñas radiyallahu taala anhu ci lañ ko tabax ba mu toll nii kon ñu ngi leen fii bismillah ndax fii Naziru neewoon na fii dana nekk sowetaas ñeel bépp mbindeef bu yàlla bind wala bépp jullit bu yàlla bind ndax ci ndigal la ko def mu ne moom daawul def dara lu dul ci ndigal fii ñu toog nii sutu la woon surtout boo xam ne garab gi ngay gis muy taba gi tuur la woon gars yi dañ fi doon ñëw di tuur soow di rendi ay gàtt di fecc di ko wër ñu ne ñoom seen diine loolu la laaj Cheikh Oumar Nazir bam ñëwee moo ko fi dindi muy garab gi nga gis léegi garab gi dafa wàññeeku sax waaye gënoon naa rëy lii te lu bari nekkoon na ci garab gi garab gi amoon na ab amoon na borom bu fi newoon waaye loolu lépp Cheikh Oumar Nazir ne woon na leeru lislaam bu duggee rek mu ne lëndëm ak kéefir ak weddi yàlla dafay daal di dem ndax ma yu mayuñ ko woon fii ba mu demee ñu ngi ko mayoon fële ca fiil ba fii xale di futbalee boroom fii borom dëkk bi nag Maodo baax moo fi nekkoon ànd ak doomam bu ñuy wax moo Modou Ba kooku dafa jàngi woon Europe ba ñib si muy dox ak moom ba ñëw fii ci sutu bi mu ne ko mu ne ko moo du baax maa ngi lay dénku ne fii borom dana mos a ñëw ndax ngunu ngunu bi ma fii dégg rëy na. njàng alquran bi ma fiy dégg rëy na te bari na borom dana ñëw waaye du nekk gambien dafay dafay jàll géej mu ñëw bés bu ñëwee su ma fi fekkee danaa ko ko jox su ma fi fekkut yow nga ñëw jox ko ko mu ne bi Cheikh Oumar Nazir ñëwee booba xamagu ci dara ba mu ñëwee ànd ak Serigne Ibra ak suñu yaay yu baax yi yaa mi sekk ñoom yaandey jànq ak ñoom barham bi tey ñu ñëw mu ñaan kër mu ñu yóbbu ko fale ca fiil ba bañ ne dimanche sëriñ bi oote ne dimanche Sinthiou Alaaji Faaraatoo Tànje Wélingara Latir Kunda yëpp nañ ñëw pour pour ruujle ko palaas bi mu mën a sànc waa ji toog ba yàgg rek mu dégg ku ñëw këram rek naan alkaali fan lañ jox sëriñ bi alkaali fan mooy kër sëriñ bi alkaali fan mooy kër sëriñ bi mu ne waa ban sëriñ mu ne xanaa man ki ma may place bi xanaa sëriñ la mu daal di daw mu ne xaaral ma daw dem seeti ko man am sama baay la ma waxoon ñëw na ba mu ñëwee ba jub ko rek fekk sëriñ baa ngi jàng alxuraan ségg nii ak weeram yu rafet yi mu dal di taxaw mu dal di ko nuyu mu ne ko ñas mu ne ko jógal du fii mu ne ko ah lu xew ñun commencé nañ liggéey de mu ne déedéet du fii sama xel may na ma met du fii ñu jóg ñoom ñëpp mbooloo bi yëpp joddal di jóg riir dañ doon ñaay dañ doon ñaay nii di tëral xaaxaam yee garab yee ba jàll ba egsi fii mu ne fii la ma sama baay waxoon ne sëriñ bi jàll géej bu ñëwee naa ko ko jox fii laa lay jox fekke sutu bi ne fii sëriñ bi commencé mooy photo yi fi indi léegi indi woon nañ fi photo yi léegi xam naa dinañ leen ko won cala cala cala commencé ruuj ñu commencé dimanche bu jot taalibe yi di ñëw di ruuj dimanche bu jot ba mbir ma daal di yaatu nekk nii ñoom maam Demba sekk moo amee woon quatre quatre plat bi nga xam ne moo doon rëdd koñ yi di defar mbir mi loolu lépp sëriñ bi daal di ne sama baay def ma ne woon boo demee ci réew ista istainu bi am naa i baladikum réew boo fa demee dimbandekol waa doomi réew ma mu daal di jël doomi réew moomu dimbandekol ñoom maam Demba Seck ñoom alaaji Suley Joob ñoom maam Mbay alaaji maam Mbay Caam ñoom euh, sa maalaj Suley Suley sa ñoom Seet jóob demet ñoom alaaji Samba jóob alaaji Aliou Tunkara nekkoon ca Sinthiou alaaji ñooñu ñëpp ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko boot mu ànd ak moom mu ne man fu may dem damay yëglu ndax du ma sàcc damay yëglu ne ñëw naa ci dungu naay ne ci biti mu ne ñëpp xam ne Naziru ñëw na ndax sama baay def ma ne woon Naziru xamal koy àndal ak kuy ànd ak yow mu doon ñu wax man Naziru dañ ma nas waaye fi ma nas cëy balaa ñu may nocci dafay jafe ndax ki ma nas ku mën a nose la ndax moom moo nose ñëpp xutba biñ fi jàng bàyyi moo ko taali alhamdulillahi la aaxa bayna al arwaax mu ne ñu ngi sant buur bi nga xam ne moo mbokkale roxo yi booba jëmm amut ba jëmm amagut booba la roxo yi nekk ay mbokk moo tax jëm yi buñ juddoo nekk ñëw ci alami naasuut ña nekkoon mbokk ca roxo ya buñ juddoo al fokk danañ àndaat nekk ay mbokk ñu ànd kon xutba boobu lañ doon def dal di ci wax lu rëy xutba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu rëy boobu nga xam ne xutba na ko naan doomu aadama ñépp ki leen jur mooy kenn maam aadama moo leen jur maam aadama boobu mu ngi bay ko ci suuf kon mu ne ku xees gënut ku ñuul ku xonq xa keneen ku ku ku bulo ka wala ku vert ka tam gënut keneen ka ka gën mooy ki gën a ragal yàlla moo tax mu ne sama taalibe toujours la ma koy dénk mooy ragal yàlla diine du mën a mat jaamu yàlla du mën a mat fekk ragal yàlla amut Cheikh Ahmad Nazir nag ku seede naa ne ku ragal yàlla la ku bëgg baayam la ku bëgg yàlla la ku bëgg yonent bi la ku bëgg nit ñu baax ñi la moo tax ñu ngi leen di ziare yéen ñëpp ci turi doomam bi nga xam ne mooy xalifam tey muy baay Cheikh Mouhamad Nazir mu nga tey ca Nigeria waaye mu ngi ànd ak yéen ci xolam ak xelam ak xalaatam moom ak mbooleem ay rakkam yoo xam ne mu ñoom ñoom ñoo bokk bàyyi ñëpp ñu ngi ànd ak yéen ci loolu di leen bismillah fii kon neema googu mooy neema gi mu ne woon anamaha allahu ala qawmin yàllaa ko xéewal ci ay nit ñoo xam ne yàlla moo leen bëggal xéewal wa ma yuridillahu bi yu yufaqihu fi diin yàlla su bëggee nit def koy may xel walla mu jàngal ko wala mu xamloo ko diineem ku xamul diineem rek du xam boppam ku xamul boromam du xam boppam ku xam boppam dana xam boromam ci loolu lañ nekk ba bés di ki tey Mbaye Dramé mii toog moom mooy président comité bi nga xam ne moom moo fi ñoom ñoo fiy gàmmo gàmm nañ fi lu mat ñaar fukki at ñaar fukki at ak juróom benn juróom ñaar def nañ ko gàmm gi te sëriñ bi ne woon gàmmoom du gàmmo waaye congrès islam la ndax ñépp a fiy daje Nigeria Cameroun Ghana Niger Sénégal Mauritanie ñépp a fi daje kon loolu ñëw ngeen tey place boo xam ne seen place la neewoon na neewoon nañu nag neema gi maa ngi leen di junjal ne képp ku yàlla bëgg rek dana leen fi fekk mbindeefu yàlla yi dana leen fi fekk du taalibe bàyyi wala doomi bàyyi rek ñoo leen fi fekk waaye doomi ñeneen ñoo xam ne yàllaa leen baaxal danañ leen fi fekk mu ñu doon wax naan Cheikh Mouhamadul Bousseyrou def ne ki gën a texe ci nit ñi mooy ki nga xam ne dégg na nit ku baax mu dem ci moom pour kooku baaxal ko ca mbaaxam ba mu ne Bousseyrou mu ne kookoo gën a baax bàññees ne ko déedéet kooku gën baax ki gën a ki kooku gën a texe ki gën a texe mooy ki toog këram toog biir néegam yàlla baaxal aw nit kooku jóge këram ba ñëw fekk si ko néegam baaxal ko ca mbaaxam ba defe naa kookoo gën a kookoo gën a texe ndax kooku demut yóbbaluwut tukkiwut deful dara mu ne woon neema gi nag loolu la leen yàlla defar gis nga taba gi ba dañ dañ fi toon toog ba guddi nga dégg car yi di yëngatu gir gir di yëngatu boo ko sëriñ sëriñ bi ne leen dal leen boobu ay aw ñun nag aw say rek ñoo fi nekk mu naan dal leen borom taba gi mooy def ay maninam mu ne waaye man maa ngay def sama manin mu ne te maninu leeru yàlla gi bokkut ak maninu lëndëm ak seytaane daan nañ fi toog ba yàgg lu mel ni xale bu ndaw bu tuuti bu dëppoo ab këll dox ñuy toog benn bés di ko upp di ko upp ba mu xaw a nelaw xale bi dal di ñëw ba tiim ñu mu ne ñu mu dal di jóg mu ne bu kenn buuse bu kenn randatu ne leen tekk rek kii dafa ñëw dafa am lu may laaj waaye wax naa ko ko kale ba daal di dëppuwaat lekkitam ba daal di delluwaat dem ba mu demee ba yàgg tabag gi yëngatu yëngatu bu rëy mu ne ma ah, ki nga xam ne moo ñu doon lijal wala moo fi nekkoon seytaane ba yàlla yóbbu na ko ca ëllëg sa bët set di dimanche benn waay ju sol yére yu weex tal dal di toog ci reenu tabag yi ñu daal di ñëw mu toog ba ci kanam rek mu daal di jóg jubloog néegu sëriñ bi fale daal di yëkkati ay loxoom mel ni koy wax ni sa baay baay ne maa ngay dem mu daal ba mu dogee nii la jaar ci penk jumaa ji di wéy keroog ba léegi kenn gisatu ko mu ne la nga xam ne moo fi doon lijal wala moo fi lëndëmoon yàlla yóbbu na ko mu ne man alaaj Ibrahima Niass nee na ma doo ne fu seytaane nekk mu ne naziru mu ne ko naam mu ne xamal koy àndal ndax foo fanaan leerab yàlla ngay fay fanaan ak loo bëgg a def na nga ci am sama ndigal nga soog koo def fekk jotoo sama ndigal bul def waaye jamono boo jotee sama ndigal rek defal lum rëy rëy rëy yàlla dana la ko man loo te su boobaa dara du ci xew kon fii mooy neema ñu ngi leen fii tatagal ñu leen fii bismillah di ñaan yàlla kilifa yu baax yii ñoo fi nekkoon ak sëriñ bi mu leen di oo di dajeek ñoom di def ak ñoom lépp loo xam ne lu baax la te ba bés ni ki yàlla def nii kër gi kuñ fi doon may kër da ngay jaayaat kër gi nga dem sa yoon ba ñëwee mu ne ku ne sa kër na nga ko téye bés dana ñëw boo ko jaayee da nga rëccu lu tax nga jaay ko te defe naa ña jaayoon rek rëccu nañ ña jaayoon yëpp rëccu nañ ndax léegi fii moo gën a seer ci dëkk bi ay million million dalasi lañ lay wax xuma la million CFA de waaye ay million dalasi waaw loolu lañ lay laaj fii pour lu ndaw rek loo bëgg a jënd kon loolu mooy xéewal bi loolu mooy mbiram neema E ñu ngi ko sanc 81 sanc fi école bi rawdatul atfalil quran ya la ko tuddee woon mu ne Abu Darda sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nam doon jàngalee mooy lal basang xale yi di jàng mu dem ba ci yàgg mu ne léegi nañ niroog suñu jamono léegi silwise di toog ci ay toogu moo xew léegi nañ ko soppiwaat ñu daal di toog ci ay toogu ñu jàng ñu soppiwaat ko mu ne jamono lu mu laaj rek nañ ànd ak moom ci jamono kenn mosu fee yëlowaan kenn mosu fee uti dara kenn mosu fee fay def doon jàng rek dañ doon jàngale bu àllarba jotee mu ne ku ne la nga am nanga ko joxe ci àllarba mu ne bu leen dàq kenn ndax ku ñëw pour defar doo daqaate mu daan na wax daan nañu wax naan dof sax baax na pour nga bay ko ci kër gi bés bu dof ñëwee mu jàkkaarloog dof loo kooku yaram noonu la demee ku laabiir la woon ku baax la woon ku bëgg diine la ku bëgg baayam la ku bëgg jullit ñi la ndax fii ñi fi am lante woon ñu ci bëri duñ taalibe baayam sax ñoom njaay duudu moo fi ñëwoon def fu invité woon benn programme fii rek tari xale yi bi xale yi taree ba pare jumaa jooju ca jamono jooja njaay dudu mooy jogoon mu ne jumaa ji danaa ko eggali sëriñ bi te kenn waxu ko te nam def loolu la defoon jumaa jooju eggali woon na ko ba boobu lañ toj soog a tabax bii kon lépp loo xam ne nekkut di avancé di dem ci kanam rek xamal ne mu ngee dem ci gannaaw ñu ne alhamdulilah lépp a ngi avancé di dem ci kanam kon ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant. ñu ngi di ñaanal yàlla. salaamaaleykum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 di leen di ndokkeel imam Abdoulaye Ismaïl Ba ci ajjuma ji nga xam ne ci lañ nekkoon te tey mu nekk teraanga ju rëy ci Néema Nazir fii Néema Nazir yàlla xiwal la ndax Cheikh Mamadou Nazir ne ne ni amatun ala barakatillah mu ne Néema ni amatun ala barakatillah Néema xiwal la ci barke yàlla yi nga xam ne moom la yàlla di wàcc koo suuf te waxoon na ne fii rawuwaay la boo xam ne bii képp ku fi ñëw rek da fi rawee moo xam sa diine la moo xam sa àddina la moo xam sa yar la moo xam loo mën a bëgg rek da nga ko mën a amee fii ci neema Cheikh a Nazir moomu damay wax toujours ne Mouhamad Nazir bu la kafee dëgg la bu la waxee la waxee dëgg dëgg la bu la kafee dëgg la bu la waxee dëgg dëgg la daan na waxee nit ci ay wax kaf yow rek. waaye da gis da ngay xëy rek gis na lam doon kafeeg yow rek mu taxaw ci sa kanam nga xam ne lam doon kafeeg yow dëgg la waaye lam doon waxee leen itam ak dëgg la ñu ngi sant yàlla itam beneen yoon ci ci Cheikh a Nazir ak njabootam ndax wax dëgg yàlla yàlla dimbale ñu bi nga xam gannaaw bi nga xamee ne làqu na njabootam gi nga xam ne ñoom lañ nekkat lépp loo xam ne lii moom la doon dund ak Cheikh a Nazir lu karoo la ñu dundee ñoom ci yaatu ga ci ga ca bëgg lu baax gi te it dal di nëpp seen bopp feeñe feeñal ñëpp loolu mooy li nga xam ne moom lañ dundeek ñoom ca yar ba ca teggin ba doy na ci nga ab ab sëriñ waxtu foo mën a dem rek boo dajeek nit ñi la ñuy wax ci ñoom mu nekk wax ju rafet seen sëriñ si ñoo baax seen sëriñ si ñoo yaru seen sëriñ si ñoom bëggewuñ doo leen fekk mukk ñuy xëccoo àddina waaye foo leen fekk rek ñu ci tegee ci la xam ne moom la seen wayjur woowu tegeew loolu ndam la loolu itam teraanga la loolu itam ñu leen a wax ne ñun ñu ngi koy bëggee ci waxtu wu ne neema fii nag wax dëgg yàlla li imaam wax ci neema dafa doy sëkk pour nit da ci tegaat leneen waaye sancab neema kum yéemut dara dootul la yéem maa ngi fàttale fàttaliku ci bi ñuy lal wasifa bii boobu ñu nga daan wasifa fële ca perong ba waaye dafa xëy benn bi rek Cheikh ma Nasir ne su ma bàyyi jox na ma digal gën gis naa ko démb ñu dale ca jumaa ji boobu jumaa ji jullee guñ fi boobu suñ daan la ca buntu kër ga ca buntu néegi jax bu fële foofu lañ daan dafee naafila imaam mii di ñu jiite naafila mu ne ndigal ñëw na sama bàyyi woon na ma démb ñu laal malaana wasifa mu dalee ci ji ba ci sama néeg bisimilah lañ laal jumaa wasifa moo tax li imaam wax ne lépp lu daan def rek ci ndigal la koy def lu ko bàyyi waxul daana ko def loolu daan defee Cheikh na Nazir moo bëggoon bàyyi ba nga xam ne am na benn bés yi war a julli timis ci néegi mag néeg bu mag bi ñuy lal basang bi mu ne ki kii lal basang bi mu merci moom ne ne bàyyi daanu lale lii basang rek mu merci ci kooku loolu yëpp wane ne bëgg dafa bëggoon bàyyi dafa bëggoon bàyyi ba li bàyyi daan def rek soo soo ko xoolaan sax ne ko bàyyi lii la bàyyi daan def rek da gis ne Cheikh Oumar Niass dana ci loolu am na benn bés ñu bëgg a gàmmu fii am kenn ci ñun mu ne nañ gàmmoo Vision 2020 nañ gàmmoo ci Vision 2020 c'est mon asi na mënul luy vision 2020 fekk boobu benn programme la bu ñu teg fii ci dëkk bi ñu war koy def ñetti fan bu ñuy mitin rek c'est moom ne si du mën a gàntu tey ñi te nit ñi itam rus nañ koo gàntul ñu def benn bés rek benn bés man maa ngi toog ci gannaaw man a Cheikh Mamadou Nassir man dee bugg naa wax man ma jum waxal ma ne ko ñun de bàyyi moo ñu xamal gàmm bàyyi moo ñu xamal gàmm suñu suñ waan mu ñu waxal ko yonent bi dañuy waxal jaar jaar yonent bi dañu won jikko yonent bi te li moo wax yépp dañ koy gis ci moom béjjant bi fenk mu won ñu leer ak yonent bi dal di ñaanal ñu tasaaroon ñun ñun taalibe Baay fi Baay waxoon ne eh, boo faagee boo ko waxoon sax ñu ne mënoo gàmmu sëriñ bi ñun lii lañ xam rek na siiru na xaar na dëgg la nii la ñoo war a gàmmoo te nag loolu la gàmmu gi wéyee boo laay alaaj baabu tëri ba léegi fu ma dayee remal ni ma maa ngi laa ndokkee sa wax jooju ba léegi dafa bëggoon Baay trop ba boo ko buggee nax sax yonent wax nañ ne boo ko buggaan a nax ci yonent bi nga koy nax waaye Cheikh Mouhamad Nazir boo a nax rek ci bàyyi nga soo ko buggee nax boo jaaree ci bàyyi rek am Cheikh Mouhamad Nazir bon ñu ngi ñëpp ñu ngi gërëm yëpp yal na yàlla defal leen jàmm seen télévision bii yal na ko yàlla yokk yal na yàlla yokk ba mu ci kaw kaw kaw fa ngeen bëgg mu àgg ci ay maqaama ci ay kowe ci ay daraja yal na leen ko yàlla jox yéen na xam seen jortu yal na yàlla jox lu ëpp seen jortu ba ma saalika alilaa bi asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf mbokk yi jërëjëf itam ñi ñu àndaloon ci liggéey bi jërëjëf itam Ibou Cissé waaye jërëjëf itam waa Actu 24 nga xam ni tabaarkalla ñoom la ñu àndaloon ci liggéey bi ñu ñëw ji jàppalante loolu la yàlla dogal yàlla na yàlla sàmm leen ci barkeen bi sallallahu alayhi nag ak euh, yéen euh, sunu xéewal gi nga xam ni ñëw nañu fii ci Gàmbi ñëw def fi émission jumaa yàlla nu yàlla dimbali ba ñu tasaare ko ci àdduna yëpp ndax xam ngeen ne àdduna sëpp a ngi soxla émission juma ci seen i ngir mën koo tasaare ak seen fit télé Futurs Médias askan wi. Euh, ñu ñëwoon fii ci dëkk bu tedd bi ci Banjul nga xam ne Niaman Nazir Cheikh Man Nazir Niass bu euh, Cheikh Ibrahim moo ko sos moo daanaka moo sos dëkk bi moo def lépp moo fi wàcce diine l'islam moo ko taxawu defar nit ñi toj ko ba tey jii ñu mën a ñëw fekke fi jumaa ànd ko ak imam bi nga xam ne moom lañ fekk muy imam Abdoulahi Ba ci alxuraan ju neex ji yiw ci jàmm ji ci ni mu ko defee yàlla na yàlla dolli ndam ñu sant lool nag euh, xalifa bi xalifaam bu tedd bi nga xam ne euh, tabarakallahu mooy Baye Nazir euh, xam naa dafa dem ci voyage moo tax fekkewul sax jataay bi waaye nag Baye Mbay itam nga xam ne ñu suñu wëllëre la alxuraan di jàng ci jàkk ci jumaay Médine ja Médine Médina Baye ja yàlla na yàlla dolli ko ndam ak njabootu si Mouhamed Cheikh Mouhamad Nazir muy eh, soxna Seyda Habibatu yàlla na yàlla doole ndam ñas ak mboolem ñi nga xam ne rek fekke woon nañ barab bi ànd ko ak eh, Cheikh Ahmed Kouta waaye àndan ko ak itam sëñ Babacar Thiam ànd ko ak eh, Khady Omar Seck mi nga xam ne moom itam fi lañ ko fekk ak mboolem ñi nga xam ne rek jàpp nañ ci liggéey bi soxna Mariamu Ba muy soxna Rama Ba Mariamu Mariamu Ba nga xam ne danoo dal ci këram mu teral nu di kër nag Cheikh Mouhamad Nazir ñas ndax kër gi itam Cheikh Mouhamad Nazir moo ko sos moo tax te tabaarkalla sant nañ yàlla di leen jox rendez-vous rek ba aljuma ak jàmm ñu àndaat ak beneen émission àndaat ak yowmal juma fii ci eh, Niaman Naziru ci gambi incha allah ba jëmi jamono fas nañ ko yéene tas ci àdduna sépp nag incha allah jërë ngeen jëf.